mbokk internet Senclic TV maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal si ànd beeg te bi saa su ne dal leen jàmm ci li gën fas ci xibaar yi ñu dooree ko ak li mu bésu tey bii di mbas mi di covid 19 jàpp leen si juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti test ñu amal fukk ak juróom ñoo si ñëw ba positif tey ji am na ñaari kaw contact ak juróom-benn kaa yoo xamante rek ña nga jógee aéroport euh, Blaise Diagne tey ji juróom-ñaari kaa lañ am kaa communautaire te ji téeméer ak fukk ak ñetti nit ñoo xam ne rek bañ leen saytoo amatuñu feebar bi dañ leen daan di bàyyi ñu ñibbi seen kër tey jii am nañ juróomi cas yoo ne nag maanaam seen cas dafa grave jamono ji ñu ngi ca sauvetage tey jii sant yàlla amul benn bakkanu doomu aadama bu ci rot nag ñu ñaanal ñi nga xam ne yàlla jël na leen ñu daal di dem àjjana des ci hôpitaux yi yàlla daal di leen fëgg ñu doore xibaar yi nag ci tiis bi am ca uh, Touba benn sëttu Serigne Bara Mbacké moom lañ fa daal di faat moom Ibrahima kan nag benn vigile moo ko faat ginnaaw bi nga xamante mi ngi xewee ba Ibrahima xëyee naan daal supermarché war fa amal ab jënd bu ñu sukkandikoo ci le journal observateur moom mi xëy joxe bi la information nee na setu baara bi nag mbir mi ngi xaw ci diggante vendredi jàpp samedi bi moom dafa dem rek daal di am lu muy jënd ca supermarché ba waaye dafa mel ni nekkutoon dans de bonne humeur dafa dem daal di yuuxu ak xas wala sax di saaga ñi nga xamante ne ñooy clients yi fa ay jënd li ni mel nag nekk lu agité ba tax nag visile bi wuyoo si turu Mor Thiam moo nekkoon nag ca def mu nopi waye dafa melni ci ko kay la sipi lepp li nga xamne mom la yoron ci kàddu yu ñaaw dal dina ko sag ba pare wax ko wax yu ñaaw li ni mel nak metti ki nga xamne moy mooy di visil bi mu tax rek mu dal di ko dóor ci suufu ci suufu bir bi lolé sax ñu ngi koy dog xamé ginaaw bi nga xamantene ne ñibbi na ca këram ci ngonté nak la commencé di ap metti tu bir ci noné lañ ko dal di yobbi ci hôpital ba rek laata ñu koy defal sax ay ay perfusion génn aduna li ni mel bu ñu ci résultat yi nga xamantene rek ñi di autopsie bi ñoko ko génnee nee na rek dafa daal di subir benn dóor nag ci intestin bi maanaam ci euh, siddit yi nag foofu la métit bi nekkoon ginnaaw bi nga xam ne euh, vigile bi doon na ko fa coup bu njëkk bi ni mel nag jamono ji nag ki nga xam ne mooy euh, Mor Thiam di alias Gambien nekk vigile bi nag jamono ji nag ñu ngi ko defeere ca parquet ba ci alarba bi lañ ko fay yóbbu ginnaaw bi nga xamante rek jàpp nañ ne moom moo faat ki nga xam ne mooy Ibrahima Kane nekk settu sëriñ Bara Mbacké beneen xibaar bu diis moo amaat ca Kaolack nag ci commune buñ ci localité bu ñu naan Ouroon benn xale bu góor bu am fukki at ak ñaar rek moom la ay xaritam daal di fàtt ginnaaw bi nga xamante ne dañu jàpp ne xale boobee dafa daal di jaar si seen tool nag bu xuloo bu amee ak xeex bi rek si ñaari daal ko ba mu ñàkk bakkanam jamono ji nag kooram ña ngi ko denc ca hôpital régional bu Kaolack laata ñuy def li nga xamante ne mooy autopsie bi mu mel ne jamono ji Sénégal rey bi bari na fi lakkatuma xale yi nga xamante ne rek seen motalaguñu ñaar fukki at nag di daal fàtt ab doomu Adama ñu wax ci wàllum politique ak kii di Adama Dembourou Sow nag nekk ki nga xamante ne jamono ji moom la opposition bi di waatee ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu rek di yëkkati population fuutanke nekkee fële ñu daal di dal ne ci ñi nga xam ne rek dañuy opposé ci wàllum troisième mandat président Macky Sall nag ginnaaw nag dëggu bi nga xam ne gis nañ ko ci ñoom ak taxawaayam ñi di waa observateur nag dañoo daal di dem rek def ci ay moom ay recherche maanaam rek laaj ñi nga xam ne ñoo gën a ak moom dañ leen di xamal ne ku dëggu la ci koo xamante ne du dellu ci ginnaaw lépp loo xam ne rek wax na ko rek jàpp leen da ci jëm ba mu jeex moom moomee na ko xam-xam ci wàllu mystique ndax mu ngi ko doon ne ci papam bi nga ne rek mu nekkoon na sëriñ bu mag fii ci Sénégal jóge loolu ki nga xamante mooy sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kon nag lu nekk kàddu yoo xam ne ñooy duppee si ñi jege naa la Alioune Sow tax rek ñuy wax mu jàpp nag jàppale na da ci jëm jusqu'au bout di opposition bi nañ ko moytu ndax du nekk noo xamante day dellu ci ginnaw benen xibaara soxal waccayu mag gamu ji ginnaw buñu ñu ci magalum Touba mëno ji ñi di wa Medina bay nak ñom yagoon nañ déclarer né dañu dal di magal bisum juddo o sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa ñi di wa Tiwaawoon nak tay ji la xali bi dal di joxe euh, digal bi nga xamantene ne dañuy def magal gamu ji wala dañ koy bayyi ñi di wa fami euh, Baro bu Cheikh Ahmad euh, Ahmadu Baro jigen nak mom néna rek ñom dinañ célébrer li nga xamne moy juddo sayidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam ginnaaw bi nga xamante ne ñoom mooy famille xadra ñu nekkee foofee ca Tiwaawoon donte sax mbas mi di Covid 19 mi ngi fii waaye nee na rek joxe nañ dogal rek ñu daal di respecté mesure barrière yi nga xamante ne moom la état du Sénégal joxe rawatina médecin yi rek maanaam sol masque beeg raxas loxo yi mooy tëndeku yenn yi nga xamante rek moom mbas mi mën na tax ñu law fii ginnaaw bi nga xamante ne rek jël nañ seen dogal boobee ku nekk seen xalif moo joxe bi la xibaar ginnaaw waxtaan bi ñu amal démb waaye nag dinañ fàttali askan wi ñu ngi koy def waaye dañu fàtte mesure barrière yi moom la autorité sanitaire yi santaane beneen xibaar naka joxewaat naka ci wàllum Ousmane Sonko ak wax ju bari ji nga xamante ne nemmeeku nañ ko ab saytu la ñu gis ne na Sonko rawatina euh, ginnaaw bi nga xamante ne Idrissa Seck kii di Khalifa Sall nag nemmeeku nañ ko mu nekk ñoo xamante ne daal pour ñu gis leen ci média yi ñu wax ci euh, tuuti na lool Sonko nag daanaka bés bu nekk ñu ngi koy gis muy conférence de presse ak euh, rawatina jamono ji ginnaaw bi nga xam ne jàmmarloo am na ca terme si cawkaam coow bi amoon diggante policiers gendarme yi fan neke ak problème ki di Souleymane Teliko Sonko dan amal conférence de presse nee na wax mom dafa mën nek bu fekkente ne euh, gouvernement bi day gouverner 365 jours ñom opposition tamit war nañ jël sen cadre di xéxal askan wi li nga xamantene euh, momé la euh, momé la de gouvernement bi di sen seen du Sonko nee na nag lu muy wax nekul ne dafa mën wax wala sax dafa am ay preuve wala sax day wone ne mom mo gëna opposé wu ki di président Macky Sall waaye dafay bëgg won askan wi ak opposition ne leen jot na nak ñu joko di xéxal askan wi li nga xamantene nak ñu ngi leen di toddi seen ndoodute attaluñu ko ñu wax ci wàllum délinquance bi nga xamante ne jamono ji bu Touba amee euh, ginnaaw bi nga xam ne rek am na ñu fi des fii ci euh, police quatrième bu nekkee Médina le lendemain bu màggal bi daal nañ amal nag ab opération waaye nag luñ ci teg ay loxo ci ñi nga xamante ne rek ci diggante Médina Colobane Gueule Tapée ak Fass ci ñaw tees ñoo xamante ne dañoo daal di jël seen moto scooter wala ñekk ay cambriole wala ay laveur opération boobee lañ leen di tegi loxo li ni ñu ngi ko amalee uh, ci communes yi nga xamante ne rek daanaka bu màggal amee dañ ciy seetu ay agression uh, jàpp nañ lu bëri ci ay xale góor yoo xamante ne rek uh, daal nañ sax indi woon ay plainte contre ñoom ñee ginnaaw bu ñu amalee pat yooyu ci guddi deux jàpp le six nag ñooñu dinañ defeere ca parquet bu rëbës mbokk yi mu nekkoon xibaar yu gënoon fës nag ñu leen di jaajëfal ci ànd bi déglu bi di leen wax ngeen daal di abonné